l'orientation que j'ai donnée aux services placés sous mon autorité. Ça fait cinq mois que je suis à la tête de l'administration de la région. Nenalen, euh, vraiment, on a quatre axes principaux de travail. Ci quatre axes yooyu benn bi ça touche aux relations entre le spirituel et le temporel. maanaam wàllu euh, diggante état ak euh, kër diine yi te mu nekk une particularité du Sénégal mu nekk euh, une spécificité sénégalaise le spirituel et le temporel marchent ensemble de manière très harmonieuse événement yu mel ni aussi événement yu am solo la pour suñu réew parce qu'il s'agit de se retrouver, de prier Dieu pour que mu yokkal ñu jàmm ci suñu réew euh, at bu ne ñuy def ay jéego ci wàllu développement mais surtout aussi travailler à ce que li état yépp soxla yàlla defal ko Sénégal muy une stabilité sociale et une paix civile bien entendu donc euh, lu ñu leen euh, taxawu rek tuuti na mm. mais dina ñu jéem dans une euh, démarche de responsabilité à accompagner l'ensemble des foyers religieux yi nga xam ne il compte des fidèles dans la région mm-hmm. ce matin rek depuis dix heures préfet maa mi ngi fii ak sous-préfet jógee département de Mbour ñu def le CRD d'abord sur euh, le pèlerinage marial de mm-hmm. Poponguine mm-hmm. ñooñu d'ailleurs euh, ils ont eu un peu moins de chance parce que j'ai pas pu forcer pour venir partager quelques minutes mm-hmm. mais bi ñu paree recevoir na le comité d'organisation dans mon bureau euh, nuyu leen rassurer leen waaw ah, donc service yi moom maa ngi leen di sant bu baax cinq mois bëri na bëriwul mais déjà di nga mun a tester di nga mun a éprouver say collaborateur damay am mbégte toujours euh, di euh, mettre en exergue d'abord seen sérieux mettre en exergue seen professionnalisme mettre en exergue seen rigueur mettre en exergue seen loyauté loolu dafa am solo et sëriñ bi dina ma confirmer sans doute plus tard nit mun na am yooyu yépp rigueur sérieux professionnalisme loyauté mais bu fekkee ci biir xol bi am na lu des liggéey bi forcément dina am lu des man nag mun naa leen seedal que diir bi ma def ak yéen sur ces cinq mois vraiment je n'ai absolument rien à reprocher samay service régionaux ak entité yi fi nekkal état bi pour accompagner askan wi mm. te on ne perd rien dans ça être à l'écoute des populations tenter de leur apporter des solution à leurs problème képp koo xam ne commis de l'État te nga nekk ci tu ne rien da ngay am nit ñi da ngay amaale yàlla Donc moi, c'est ça qui a fondé vraiment ma démarche. Presque ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier. T'es fasciné ou me changer. Soyons courtois, soyons accueillants, soyons ouverts et ayons la disponibilité d'aider les gens. Parce que c'est à ce niveau que les agents de l'État se distinguent c'est niveau aussi que les autorités se distinguent man leer na ma ne mënuñu régler les problèmes tous les problèmes des personnes ça je suis conscient yàlla rek moo mënul loolu même état mënul loolu mais bu yéene bi àndee ak pas-pas bi euh, toujours di nga mun a am vraiment nit ñi parce que ñi aussi am nañu bët am na ñu xel xam nañu ku leen di accompagner donc du ma guddal noonu Serigne Habib donc dama ñëwoon euh, d'abord pour dalal la mhm. euh, couper travail bi tuuti euh, dalal aussi ñi nga àndal du ñàkk ñenn ñi on se connaît déjà parce que daje nañu ci yeneen du am ñeneen du ñàkk ñeneen ñi ils ont dû voir leur gouverneur dans la dans les télévisions dans les médias mais ñëw teg leen loxo tey individuellement nekk na quelque chose qui m'est allé droit au cœur di souhaiter avec organisation 2024 de cette journée, en l'occurrence euh, le 20 de ce mois, soit une des plus réussies. bu ñu demee ba mbir yi jeex comité d'organisation bi sous l'égide de sëñ Habib di def évaluation ñu ne ah globalement daal kontaan nañu donc moom lay ñaan euh, di assurer aussi la famille que nous ferons tout le nécessaire, nous continuerons de faire tout ce qui est nécessaire pour vraiment que la, la famille sente le gouverneur et son administration aux côté de l'organisation. vraiment di leen sant bu baax di nuyu sama ñaari jigéen ñi que j'accueille euh, avec beaucoup de plaisir madame du conseil départemental ak madame euh, du conseil municipal de Ngexoox di leen encouragé et que peut-être dina am ay occasion euh, bu ci yàlla àndee ci kanam fu ñuy mun a donc déplacer wu ñëw ba foofu encore faire pousser les actions de développement. aw yiw soxlalu ngay sonn di ko yëgal parce ku fa ñëw moom mënatul contrôler ay bien ndax yaa ko dugal fu mu ñaane ba yàlla nangul ko yàlla bu yàlla tas yaakaar yi. bés buñ dul fàtteeti sa sagane nañ ne nàngam foofu ñuy dugal nag soxna si kenn du la ci jiit waaw ah, ñu la yàlla yàlla dogaale dogaale nu rafet itam wax dëgg yàlla ku jàng li nga jàng doon li nga doon fa tabaarakallaahu mm. toog di jigéen mën a toog ba toog place boo xam ne bi mën ngaa remplacer ku góor mm. léegi-léegi ñu naan la jigéen ju mën góor léegi ñu wax ko du dëkk yàlla sàmm la sàmm sama alaaji bee sama préfet bële bett leen xéewal yoo xam ne mën naa am sax dootu leen soxla tëni bi te seen i sox yof di tox li gars yi bañ a dégg tëdd muy dox yéen da ngeen di dem tëdd affaire yi di dox yal na yàlla nangul nangul ñëpp nangul réew mi nag te jàppale réew mi mm. jaarale ko ci ñi yàlla teg réew mi ci seen lox mm. neen yàlla yokk kantan mm. yokkal leen seen bëgg-bëgg seen yéene ci réew mi ñëpp bëgg réew mi koo xam ne kii boo tukkee sax yàkkamtee ñibbisi hmm. danga bëgg fa ngay ñibbisi fekk fa jàmm hmm. ñoom seen yéene ci réew mi yàlla na ko yàlla mottali ñun itam suñuy ñaan ci ñoom yàlla na ko yàlla nangu fi barke yonante bi saa salaam réew la moo xam ne man wër naa réew yu bare bare waaye bu mel ni Sénégal yombul ci benn wàll nag hmm. ci diine ci waaye sama borom moo ne woon laa tax bu dara du dëgg sëñ bi bu leen di jàmbat jamono wa ana dehru yonent bi wax na man maay jamono bu tàngee ngeen ne tàng na ma baal leen bu baree ngeen ne kii na bu leen bu leen ma santee rek ma dolli la in shakartum na ko sëñ daam saaxo soo taxawaay guddi ak bëccëg ci askan week ci kër gi gis nañ ko yàlla yàlla jàppale la moom it mu ngi waaj ay bësam boobaa kenn ku ci ne jàppale sa moroom rek man daal defe naa ne loolu la amoon lu may wax ah, yaakaar naa ne fàttewu ma dara wala lu ma fàttelu ne xam naa ne sama borom dina ma dabaatal léeg-léeg ma téléphoné soxna si rek nekk nangam manqué wala ma wax ko jëm saako mu ñëw mu ñëw wax si ko julli gi du lu yàgg parce que julli bëccëg la moo tax te sunna la nga defee julli gi ku yàlla may chance nga mën a xaar ay minutes mën naa am du passé quinze vingt minutes boo ko defee benn yoon ci sa dund yàlla defal na la assural na la ko am sens su def ko benn yoon ci par at yàlla assural na ko bàyyi bu sax fàggul nanu nag àll bu dee noonu mu fexe ba mu lew ginnaaw bi mu ko lewee mu fexe ba def fa ay valeur xam naa ne ñoom aadi li ñu gën a fàtte rek mooy am na soxna su baax su nekk eaux et forêt joo xam ne def na ci effort yoo xam ne kenn mën la ko wax at yi moom mu commencé di am ay garab tey garab am na fa solo lool ah parce que nit ñi kenn mënul xam seen lim dañuy bare bare bare bare ngir yaakaar léeg-léeg nga dugg oto ñu ne man de fii laa julle woon leen ñu ne nangam nangam bàyyi bu sax it bi mu xamee loolu moo ma ne àll bii de su leen xamoon nu mu demee waxuma man bu ma dee fi ngeen may suul waaye njaboot képp bu ñu dee woon maa dee daal ñu suul mu ne waxuma salaatu tas bi waaye ralenti rek taxaw jàng fàtte wax sa soxla mu faj nekk di ci sonn di ci sonn di ci sonn yàlla def li ko neex ci moom ñu continuer di ci sonn képp ko amati jot mbaa nga am yoon mbaa mission bu la may nga jaar ci kanamu teenee ba jàngal salaatul fatiha wax say soxla ñaanal Baye Ibou Sakho allahumma salli ala sayyidina amul benn presque benn diligence boo xam ne war nañ ko def mm-hmm. ndax képp ku nekk mu jóge ci sécurité bi ba ci sax ku fa demoon tey jii nii sa doom réer am na dispositif boo xam ne teg nañ ko pour nga mu mën a mu nga mën a am la nga xam ne moom nga soxla. Mhm. ñii ñëw di nga di julli si comme ni ma ko waxee sànq salaatul tasbiya dafay tombe ak euh, pèlerinage marial de Popenguine. Mhm. mu nekk ñaari événement religieux phare. Mhm. yoo xamante ne nii presque destination yi benn la nit ñi fi ñuy jógee benn la ce qui veut que ak si ñuy emprunté. benn la mhm. ce qui veut dire que gendarmerie fera quand même en tout cas un plan d'action global pour mën a gérer ñaari activité yooyu ba nga xamante ne ni képp kuy ñëw di julli si axe yi ngay emprunté dinañ ko jalonné ba nga xam ne sécurité ba dina doy mhm. bu ñu yegsee yi tamit fa ñuy jullee dinañ fa mettre dispositif bu doy boo xamante ne ni selon li nga xam ne jàpp nañ ko ne ñu ngi koy xaar ci ay doomu aadama seen liggéey la dinañ apprécier teg fa un dispositif avec des éléments suffisants mhm. boo jëlee li nga xamante ni moom mooy santé bi ñu combiné ko ak sapeur pompier yi nga xam ne ñoom dañuy fexe ba képp koo xam ne am nga gàllankoor ñu mën la taxaw ci taxawu bi gën te mu mën te mën a gaaw tout ce post est poste médico avancé te ngeen demandé koy tamit dinañ leen ko fa tegal. Mm-hmm. avec un effectif renforcé. Mm-hmm. genre euh, sapeur yi tamit dinañ ñëw renforcer en tout cas la sensibilisation kon avec certaines mesures de prévention waaye tamit képp ku soxla assistance yi tamit dinañ ci taxaw. Mm-hmm. li nga xamante ne nii moom moo jëm ci cet gi ak cell gi. Mm-hmm. yaakaar naa ne Sonaged bu ñëwee mooy UCG nettoyé ba mu set te déjà ñu ngi sur le site waa ONAS ñëw vidé fosse yi ñu teg dee toilettes mobiles. bu ñu defee vraiment les opérations de désin de de de saupoudrage désinsectisation traditionnellement yi nga xamante ne ni moom la sa euh, service d'hygiène di def. Mm. boole koy tamit euh, def vraiment ay en tout cas opération yoo xam ne lépp luy luy dox suuf yu nekk côté yooyu noonu comme site bi ni mu bindoo dinañ mën a daw bu baax ba nga xamante ne. ku fa ñëw mm-hmm. di nga mën a am en tout cas sécurité bi war ndax nag mm-hmm. kenn ñaanul yàlla dem di jaamu sa borom ba ndogal di la fa fekk wax dëgg neex yàlla li nga xam ne moom mooy jëm ci lutte contre les en tout cas en tout cas les opérations anti rampant brigade régionale des jeunes dina si bàyyi xel bu baax a baax ba résultat yi nga xam ne amoon nañ ko daaw avec l' appui de de de de de Val d' Afrique. waaw de c' est Val d' oui de Val d' Afrique dinañ ci àndaat ak ñoom ñu jàppale waat ñu ci ba brigade régionale d' hygiène amaat résultat yooyu noonu li nga xamante ne ni moom moo jëm ci. Euh, ndox mi ak courant bi tamit yaakaar naa son euh, Senelec moom lépp loo xam ne war na ko def mhm. ba nga xamante ne mu jëm ci leeraay dina ko dina ko taxawoo mhm. ndox mi tamit lii citerne nii dinañ fexe ba offert juróomi citerne yi ñu demandé mu nekk sur le site en sus de li nga xamante ne nii moom la liggéey bi waa seen Sen'Eau war a mën a def mhm. ba nga xamante ne képp ku fa ñëw di dina dëkk ba dina leer waaye tamit lu waaye soxla ci ndox tamit di nga ko di nga ko am en quantité suffisante mu nekk tamit ndox boo xamante ne en tout cas la qualité sera au rendez-vous aussi avec l'accompagnement des services des services d'hygiène contrôle marché bi tamit ni ma la ko waxee opération d'envergure la ñuy def pour profiter ci événement yooyu noonu euh, contrôler déjà stock yi vérifier ba nga xam ne nit ñi dinañ di jaay prix yi nga xam ne moom lañu ñu waaye képp koo xam ne tamit da ngay jaay loo xamante ne qualité ba demewu fa opération ñi def saisine yi dinañ ko def ànd si ak euh, euh, les services l'administration du commerce ak euh, la brigade régionale d'hygiène globalement daal jàpp naa ne en tout cas xel mën na dal mm-hmm. parce que li ñu fi waxtaanee mu dëppoo ak li nga xamante ne ni moom lañ waxtaanee woon Mbour ñu réaffirmer engagement yooyu noonu jàpp nañ ne dinañ ñu am julli salaatu tasbiya ni ñu ko nam organiser nit ñi ñëw si bismillahi rahmaani rahim delluwaat seeni ay këy tamit si alhamdulilahi rabil alamin may exhorté waat rek euh, chef de service yi ndax fas moom lu mu daw daw daw du ñu làbbali ko lépp lu ñu jël comme engagement muy service technique di collectivité territoriale nañu fexe ba ñu matale ko ndax bu ëllëgee bu ñuy évaluer duñ ñu ne kat yéen yéen a waxoon di te defewu leen ko waaye lépp lu ñu fi jël ak engagement rek nañ ko respecté fexe yi tamit ba surtout échéance yi nga xam ne moom la ñu joxe ñu mën ko respecté ndaxte mën a ba a mën a forcer comité d'organisation yi normalement ci planning yi nga xam ne dañ koy def pour exécuter en tout cas différentes tâches ak activités yi nga xam ne war nañ ko def loolu mooy euh, sëñ Habib kàddu yi ma bëggoon a yëkkati di la sant di la gërëm di sàkkuwaat seen ñaan en di ñaan suñu borom lépp lu ñu ñaan si julli gi yàlla na ko suñu borom defal wasaare ko ci seen suñu Sénégal muy xéewal di sutura si ñun ñëpp jërëjëf ma jox la kàddu gi